bépp téere woy boo xam ne ay wéyam ñu ngi daanoo ci lii fa xëccaan bépp téere woy boo xam ne ay wéyam ci lii fa xëccaan lay xem rek maqsuura lañ koy wax téere bi nag noon la demee ki ko wéy mooy ibnu dureydin kuñ nanguloon xam-xam ci jamonoom la ku siwee woon xam waxi arab la ku ci liggéey la ku ci bind ku ci jàngale la itam mu nekk maqsuura boo xam ne nag yi ñuy rafetlu ci wéyi maanaam fànni wéyi arab bëri na yum ci lamboo ndax lamboo na xasal lamboo na tagge lamboo na itam hikma lamboo ay mawaaxib lamboo na itam affaire xamaasa lamboo na itam tagg lamboo na itam wasfu ak yeneen ak yeneen kon ñu jàng ko rek mu ngi tàmbale nag ci tawat jamono day bëgg guddi moo mu ne yaadabiyatan asbaha sayin bilmaha taral xusaama bayna asjari naqa imma taray rasiyaha ka lawnuhu turata subin taxta adyali duja wastaala almubyadu fi muswaddihi مثل استعال النار في جسل الخطا فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى وغاد مع سرتي دهر رمى xawaatiral qalbi bi tabrihil jawaa ji jàng lool maanaam léegi dafa dalee ci tawat jamono ak wane ay tolof tolofam loolu nag mu mel ni dafa am ku muy waxat te njàmbat li dalee ci bee jaaw bi watan imma taray rasiyaha ka lawnuhu foofu la dalee hoon waaye way wu njëkk bi ñu ngi ko jëlee ci maqsuur ab keneen nag mu ne yaa dabiyatan eyewa koj biir asbaha seyin jure gën ci ay niru dara bilmaha ci nagu njaaxal tara mbiroom dana musamma alxusaama gàncaxa xusaama bayna asjarin naqa ci daga ci diggante garabi beeñ yi yow jongama ji nga xam ne yaa ngi mel ni nagu njaaxal wuy dundee gàncax gu ñu naan xusaama dëkk ci diggante garab yi beñ da ca wëttee koj biir dañoo wax ne bët bi moo rafet torop su ko defee arab di ko ni de léegi lu moo rafetlu ñu ne xusama gàncax la bu ci baax su fekkee da koy lekk taaram day feeñ ñu ne bu dëkkee ci beñit ñaare boobu lay gën a rafet mu ne yow mi nga xam ne yaa gën a niru nagu njaaxal la wuy wëtt de wuy lekk xusama de wëttee ci diggante garabi beeñ imma taray boo gisee rasiya sama bopp xaaka ni du law nu hoo meloom turrata subhin koororoog suba baada ad bayna adyaali duja taxta adyaali duja ci ron labiti lëndëm yi mu ne suma béjaaw bii nga gis xam ne mu ngi dalee woon ci de doon ay benn benn kawar yu ñuy niir de ko seetlu ci bopp bi xam ne lum ni du mooy buñ demee ba guddi de waaj jeex suba di waaj a dugg si da ngaa gis leer leer yi suba gi ñuy jëm ndànk ci biir lëndëma guddi gi mu nekk ay weex weex yu tuuti rek ci benn ñuul ñuul bu yaatu mu ne suma bey jaaw bi nga gis mu dalee woon foofu nekk ay benn benn kawar yu weex yu tuuti rek ci biir njañ lu ñuul a ñuul boo ko gisee lay jawaab bi dana ñëw maa la yàggale wax bi dana ñëw imma taray boo gisee rasiya sama bopp xaakaa ni du law nuhoo meloom turata subhin koroor ak suba taxtaat yàlli du jaay ci ron lafiti la ndëm yi wastaala te takk almubyaddu aji weex fii muswaddihi ci aji ñuulam misla stiaali naar kem takk ak safara fii jaslil xadaa ci ngànjak xadaa xadaa garab la gu neex takkat xam nañu koy firee géejaan jaslu mooy matt gu dijj mooy ngànji mu ne gannaaw gi mu àgg ci fis bu baax booy janoog man rek gis kawar gu weex gi mu ni du taal buñ taal ba yanji ci matt moo xam ne mu neex tàkkat la taal bi pour nga seen ko guddi xamul nit dangay janoog moom rek mu leer la bu baax ànd nag du tax mu jeexal lii lëndëm ndax li ko leer li ko wër lay leeral bi jaaw bi nga ne mu ngi dalee woon ci doon ay benn benn kawar yu ñuy niir di ko seetlu ci bopp mel ni leer ak suba guy tàmbalee jam ci lëndama guddi gannaaw gi mu gi ci fis bu baax donte dajul mel ni taal bu ñu taal ba mu yànji fa kaana topp mu nekk ka leyli da mel ni guddi albahimi guraaji lëndam xalla goog wàcc na fi ar fi arjaa yi ci wàllam daw sabahin leer suba fan jala topp mu huññeeku gannaaw bi mu àgg ci daj këpp bopp bi boo xoolee lu weex rek ngay gis mel ni buñ demee ba wax ne guddi jeex na takk ba set na ràncang boo xoolee jëwu ji leer rek ngay gis béjaaw bi nga xaw ne moom rek ngay gis ci sama bopp bi te mu ngi dalee woon ci benn benn buy jam gannaaw bi mu àgg ci neex a seetlu boo ko gisee la yàgg li wax bi dana ñëw incha allah waxaada te ñiital maa sirrati ndoxam sama ñaw ka wala ndoxam sama ndaw dahrun jamono rama juj sànni na mu xawaatiral qalbi xilaati xol bi tabrihil jawaa ci tatak njàqare nga gis rek ni ma ne yokk ni dëkku sedd sedd sedd te njëkkewuma ko ndax ku yëngatu laa woon te li ko waral rek mooy jaaxle àddina yi tegee ci sama kaw li yëpp a ko gisee li àgg li wax insha allah dana ñëw boo jifee suma bi jaaw bi ak nim bañoo te dalee woon ci da nekk ay benn benn kawar yu ñuy niir e gannaaw bi mu àgg ci ku ma gis rek amul settantal da nga xam mu jigi mu daj bopp bi kapp nga gis jamono bi ni ma ne yokk mel ni mosuma jaar ci ndaw sedd lool ndax jaaxle àddina yu bari yu ma gaar lii boo ko gisee la àggale wax bi dana ñëw incha waxaada te ngiisan maa sirrati ndoxam sama ndaw eh, darun jamono nga gis jamono nga ci sama ndaw yëngatu yi ndaw yaag xumb gaas yëpp jeex na maa ngi ne yokk rek nga gis jamono def loolu ramaajo sànni na xawaatiral xalbe xelaate xol bi tabril jawaa tatak njàqare incha allah koy àggali dana ñëw bu soobee yàlla yal na ko yàlla àggal te def ci barke sara wa darra man nasyul musittu jadwatan mata tali tasfau asna alhasa wattahadat tasidu ayni mahlafan lama jafa ajfanaha kayful kara fa kullu ma laqaytuhu mu'tafarun fi jambi ma asarahu sahatun nawa lawla basa sahran asamma ba'duma yalqahu qalbi qabla ahlada safa mu ne waaw boo gisee ngay jaaw bi nga gis màggat gi wa aada te dem raw dul la wi dërëb fo yàlla tam daaji wow tan yem daaji la min baadi ma qad kaana ci gannaaw bu mu nekkee ma a sara te yadda koon fara su fekkee dafa def aw wut wutam loolu gis suuf si di mel day doo wax sara wala mu guddi gu bëri lay boo xëyee suba teel mu gis couleur bu ubbeeku suuf si ni muy mel day doo wax sara mu ne nga gis nga gis po hmm. ni ma ko salatee hmm. ak jamono hmm. ni ma ko mënoon defee soxla temps yi wóoruma aw ma bayre aw ma alal aw ma taar te am na jamono wóoroon naa amoon naa taar amoon naa bayre amoon alal nga gis mbir mi ni mu jàllar de ko xam ne fa tey bu doon toolu dër danaa toolu dër bu naan la woon waaye gàncax gaa ngi lax léegi te mu nit rawatina dana fo. yow ba tam daaj wow. léegi fo su fekkoon sama toolu dër la danaa toolu dër bu la. daal yéen daaj lax bu lax maa xam kaana ci gannaaw wu nekkee ma jaajëf saraa te yaa yaa foon saraa dem te mos nay naax lool. li boo ko gisee. wa barra ma te saal. am na yu sori al musittu biraaji tàggale. jadwatan xal wu xam ne maa te te mosul dañ hmm. dafa di lakk xas hmm. naa la saa ci sama jëri barjat hmm. nga gis itam tumaranke gi ma nekkee def ci man tàngooru xol wu xam ne du dal benn yoon tàngooru yaram wu du dal benn yoon lii boo ko gisee waaw wa darba ma te taal am na yu sori al musikki bu daa di tàggale jadwatan xal wala jadwatan aw jadwatan min an naar xal wu xam ne maa te te lii du dañ كالصعودية أثناء أساس تسوي جير بلد وتغض تجاه أتزيد فوق عيني صوبت ما لفن ميمير واي لما جباو تشنغلي أتبانا أي مطم تيبول كراجيني ريكمندو لكن يكا نلو تقوزو بس أنت بردك في جبان نلو دادايه وتغض تجاه أتزيد فوق ويجاك نلو عيني صوبت ما لفن ميمير واي nga gis ñàkk a nelaw sañ ci suuna lamma jafaa bu gëj nga ne aj faana ay mbatam mun soobat te pour karaaje nee ne gëmmentu ndax gëmmentoo ko jàkkaay mu ne boo gisee géej jaaw bi nga gis màggat bi nga gis wérati bi nga gis tumaraanke bi nga gis ñàkk a nelaw bi lii lépp boo ko gisee fa kullu ma lépp lu xam ne laa xaytuhu daje naa ak moom ak lu ma mën a dajeel ci tiisu bi ak lu ma mën a dajeel ci coono màggat ak lu ma mën a dajeel ci tuma anke lu mu mën di def rek moo safarul lu ñu jéggale la pour man amul solo fii tamit maa ci wàllu li nga xam ne ak xararoo defal na ko sax tun na waa sori sori ndax am na mu def ba tey ndax mënoon naa ko duñ ko tala jàmbat te amuñu bés ba tey saxoon hmm. naa ko foofu dañ ko tala jàmm hmm. asoosi ala asoosi alladi dalla sini is li aataahu hmm. wa tawni mutamasi man de su ne mënoon a yëg ne jàq naa sax su ma ko amoon a yëg ne jàq naa sax kon mu jël waaye dafa jeex ba xam naa su lay gën a jàmbal إنما العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يهينا قتلانا بديان ليدي بديان يعني ما بديان لنقول لنقول بديان lu baax la. parce que pour le moment lépp loo xam ne laata it moom dañu ne ah moom moo ko ko lu ñu jëkkale la ci jënd maa ci wàll li nga xam ne arawu defal na ko sax pour na waa sori sori. loolu laa def ko bu jaxasoo doon ak saxra bés al asamu a wala di def dañuy mos mooy saxru soo amulee sax ci biir nag mooy saxrul asam baax bi maanaam du tuuti ci li nga xam ne yéen saxru dana ko yëg moom xam ne sama xol wax dana mokkal ba mu ko daare asalaada safaar way dëgëri dëgg mu ne sama xol di li muy yëg lu tuuti bu ci danoon saxrul asam ay dana dana mokk waaw mu ne li may yëg lu tuuti bu ci daloon daj dañu lay mokk rëmb la naa ba toog bu jaxasoo toon ak soxla daj ala toog boobu daal di def baax du maa lenn laal yan xaaru gën a dayewoon xal bi sama xol sax dama mokkal asla de safa wala da ngay daj ah yóbbul la. إذا زوى الحسن الرقيب بعد من أن قصاره لبد وتوى sajiitu laa bal ajrabatni gussatun onuduhaa abtalu lii min sajaa yaxmi an ayni lbukaa tajalludi falqalbu mawquufun ala subli lbukaa law kaanat alaxlaamu naajatni bimaa alqaahu yaqdaana la asmaani radaa manzilatun ma xiltuha yarda biha li nafsihi duwa rasmin wala hijab mooy ida dawa bu laxee alxusnu banqaas arratibu buraaji tooy faalaman xamal ne anna kusaarahu naka dayoom mujëm nabaatun jeex la wa tawan alxalaku mu ne banqaas bu tooyee nga dem ba ca kanam nga gis muy ñett di la xamal ne balaa jékki ci waaw la jëm danaa yar bu tooy nga gisoon mu bi nga fekk muy bant muy ñett di la xamal ne balaa jékki rek day wow waaw bi wusag muy gën a sori tooy gam defoon bi wusag itam muy gën a jëm rek ci waaw kan jëm nit itam su demee borom ba ndaw nag ya bay hmm. gaar yow lu yokk ci moom la. Mm-hmm. ba keroog mu dee. Mm-hmm. Ah, ndax bu leen muy gën a sori ndaw. Mm-hmm. suba nag gannaaw day gën a sori ndaw. yaa ànd ak dañ koy gën a day gën a ñàkk ci moom rek. lu leen muy gën a mage. gannaaw day gën a mage nag. yi mage de waral day gën a rek. dafa leen ko su kattan la jeexee. dootul dikkati. ba demee. dootul dikkati. bu laxee. alxusnu banqaas arasibu buraaji tooy faalaman xamal ne anna kusaara wa naka dayow mujëm nabaatun jeex la wa dawan tarala ko mu ne banqaas bu tooyee xëpp nga dem ba ca kanam nga gis muy ñag di lax xamal ne bala jékki ci waw la jëm mm-hmm. danaa yar bu tooy nga gisoon mu dox mm-hmm. gannaaw bi nga fekk ko muy bu ñett la. xamal ne balaa jékki rek day wow. ah bi wusal muy gën a sori tooy gam defoon. bi wusal itam muy gën a jëm rek ci wow kam jëm. nit itam su demee borom ba ndaw nag. dafay gaar ndeg mage. yow lu yokk ji moom la. ba keroog muy dee. ah ndax bi wusal muy gën a sori su boobaa nag gannaaw day gën a sori ndaw yaa ànd ak ndaw a day gën a ñàkk ci rek du fekk muy gën a mage day gën a mage nag yi mage te waral day gën a dëgër rek nga xam ne ko loolu su kàttan la jeexee dootu dikkati su taar ba demee dootu dikkati su wér gu nga demee dootu dikkati ne isa sawa bu laxee alxusnu banqaas aratibu bu daaji faalaman xamal ne an na xusaarahu naka dayoom nafaatun hmm. jeex la wa tawan agala ko waaw hmm. ah, wala mu ne ñetti mbir foo leen fekk hmm. kanam lañ jëm waaye duñ di jëm gannaaw waaw ah, wéra di gu ànd ak magi foo ko fekk kanam lay jëm waaye du jëm gannaaw ak ñàkk gu ànd ak tayal kanam rek la jëm du jëm gannaaw de. ak réer gu ànd ak rëy. mais ñett yooyu. kanam rek lañ jëm duñ du jëm gannaaw mukk de du jëm gannaaw mukk de. moo tax mu ne moom ba mage. moo tax lu ko nuyoo te rek du ñibbi. ah isa sawa bu laaxee. alxusnu banqaaf arratibu bu daa ji tooy. faalaman xamal ko sajiitu fot naa hmm. wala jàppana hmm. asaja mooy yax galan la hmm. xam nga day toll ko mu génnoon sax moo lay gënal mu nekk fi mu nekk ah damay dund ci xaala boo xam ne fi mu ne lu génn ci génn ci moom gënal dama mel ne yax mooma galan laa déret ban li fi nekk xajara badni fotloo nama. xusatun mm. fot gu xam ne ododuha galanam. Mm. aqatalu moo gën a rey lii ñu alma mi la sojaa ci fot wala ci jàqare. Mm. wala affaire bi jëriit la. te quoi moo gën a gëlaw sojaa. Mm-hmm. maanaam xeetu fot dafa bëri. danaan ndox nga fot ci dana yaam. bu dee ci waxi arab saraku lañ koy wax. Mm-hmm. nga da lekk ñam nga fot ca mm. danay am xussa mm. lay nga wa taaman da xussatin mm. nga amee yax nga da lekk jën wala ndawal yax galam la mooy itam fot la dañoo soja mooy soja bokkul ak nit ki dafa nekk ci tiisu dee pour xam mën a tudde wéyale dara loolu mooy jëriñ xeeti fot yooyu moo am dégg mu ne man sa jaam moo ma gaa waaye li am mooy jëriñ la. Hmm. li muy def ci bakkan sa jaam mënu ko. Hmm. affaire bi yaakaar naa du ak yàq fot ak dee la. Hmm. <laughs> yaakaar naa loolu la. parce que ma doon sa jiitu fot naa. wala jàq naa. laa déedéet ba li fi nekk ajra fot loo na ma jëriñ la. te wasatun fot boo xam ne onoo doo ak galanam. aqatal moo gën a rey moo gën a rey mm-hmm. li ñaan la mina sajaati jàqare mm-hmm. yax mi wala bu haaree mm-hmm. te jëllu di sama góorgóorlu al bu kaa jooy anay wali sama bët li nekk ku dëhër bu taxee gisoo samay bët di sa teronga ñi tam fal qalbu xol bi moom moo ko lu ñu taxawal na ala sublil bu kaay si yoon jooy xol li moom gëj naa neex. te buñ luy ni rek lay jël. waaw mu ne ma di guddee. gisoo may fàtte ron nga ñu tam. parce que xol bi moom gëj naa neex. te ni rek lay jël. waaw. waaye ñàkk a fàtte ron nga ñu. comme dëgër rek la. waaye naqar wuy jodoon nit. ni wali sama bat albukaa jooy. wal qalbu sama xol. mawqufun lu ñu la ala sublil bukaa ci yooni ci yooni jooy. wa tayibil mutanabbi wa demee ci leen ne xasiidam. ci ahyaa wa aysaru ma xaasaytu ma xatala. wal baynu jaara ala doxfi wa ma xatala. mu ne maa ngi dund. waaye lu gën a néew ci li may jànkuwanteel. moo rey ñi wala ahya wa aysaru ma qaasaytu ma qatala hmm. wal baynu jaara ala don fii wa ma tadala mooy hmm. dama ku sori ci lompoñ dinañ hmm. ko baax a baax te li ma war a dalal xam ne dalal moo jaadu woon ci man bañ li mu war a heure hmm. bu ne rek muy di sonnal. Hmm. yooyu bu baax a baax. Hmm. ah yaa wa aysaru ma qaasaytu ma wal baynu jaara ala doxti wa ma tadala. mais kon de yàlla na la ji <laughs> yàlla na la ji. ah saa yàlla na la ji kon de ah lii baax dina la ji yee loolu <laughs> bu baax a baax waaye moom it li muy wax ni yàlla na ko ji man i mi bu aaree. tajallu di sama góorgóorlu albukaa jooy an ay nii walis sama bët su ma gisee sama bët bi sottiwul rongañ parce que man ku dëgër laa yooyu yombu ma it teew fal qalbu xol bi moom mawqufun lu ñu taxawal la ala sublil bukaa ci yooni jooy xol bi moom bu yàgg la gëj a yëg kontaante luy jooyloo ni rek la yëg law kaanat bu nekkoon alaxlaamu gént yi naajat nii di deyaaleeg man hmm. bi maa ci li nga xam ne alqaahu danaa dajeeg moom yaqataana mbir moom ma daaji xeewu hmm. laas maa ne ko noon boobu ma ara daalaku mooy hmm. li may dajeel jamono xeewu su ma géntoon mu dal ma damay jaaree noon ci nelaw yi du ma xeewu xante fekk tiis ñaare boo géntee mu dal la ma mm. naa du tiis ba yaa ngi ci nelaw yi mm. waaye boo yeewoo rek mu jeex mm. mu noom na li muy dal li muy jànkuwanteel su géntoon mu dal ko lu demee noonu ndax xam na ne day jaaree noona lu yeewaat de bay kontaan <laughs> waaw law kaanat bu nekkoon alaxlaamu gént yi naajat nii di diyaale man bi maa ci li nga xam ne alqaahu danaa dajeeg moom yaqataana mbir moom ma daaji xeewu li may dajal jamono yow su fekkoon damay nelaw gént mu dal ma mm. la asmaani konoon boom ma arada halaku mm. kon de du bokk ci tiis yi ngay gént de yeewu de kontaan mm-hmm. ndax dama dul yeewaat mm-hmm. noonu lay jaaree mm-hmm. manzilatun daraja la bu xam ne. Hmm. Euh, maa xiltuha jortuhuma ko. Hmm. yàlla di gërëm bi ha ci moom ni na fi ñaar boppam. Hmm. lu arabin borom xel wala hijaar di jaageen xel. parce que li muy dund. dundin la bu xam ne kenn ku am xel. daan na lu ko boppam. léegi da nga fekk nit yu métti. ndax am lu ko jaral walanteer rek. léeg-léeg nga gis nit de muñal yu bëpp. ngir am lu ko jaral rek. mu ne xam na li muy hmm. dara jarul dundee. Hmm. waaw. li mu jànkuwanteel ci métti. Hmm. sàllaw dara dara jarul walanteeru toll. li mu tagle ci mbir. dara jarul. bañ nga toll. c'est tout à fait. ndax yow booy bañ a yem bañ booy volontaire yenn yi bañ a torox rek la. comme mbir mi de ana lu jarate volontaire. Hmm. <laughs> yow booy volontaire yenn yi bañ a torox rek la. Hmm. booy bañ yenn yi bañ a torox rek hmm. mbir mi moom mooy torox ana lu jar volontaire. ren manzilatun daraja la boo xam ne. maa xiltuha jottuma ko yardaa di gërëm daa ci moom li nafsi ñaal boppam. Zuhara bin ba am xel wala yaa du jaagan xel. maa mm-hmm. am ne boobu ñu alal jumaa ji. Sëñ Moussa Afin. xul la lim baari ko. ba mawqifun bayna siyaain wa munaa fi kulli yawmin manzilun mustaqbalun yastasqu ma'a mawjati aw mujtawa ma xiltu anna dara yusnini ala baba ala yaqabi hada gurkuda uramiqu al-aysa ala babin bain rumtu irtisaban rumtu saban muntasa rajawan lidahru hawlan kamilan illa alladi awwada am la yustaja dafa wax ne li may dund kenn nit gërëmu ko ci boppam yaakaar ju lay heen ci yëngatu te la nga yaakaar ba nga yëngatu doo ko gis mu nekk ay coono yu néew loolu kenn du kenn du nga sonn da dara te doo ci jëriñu mooy loolu la dëkkee xulla bi ni réew guruj ko melaxam nekkee seen su xiin yoo xam ne dafay laay yow yaakaari taw du la ba nga tëdd dana du taw ba ba nga tàggoog maxal loolu mooy lan yaakaari taw du la ba nga tëdd dana wax dëgg yàlla taxul nga tàggoog maxal loolu lan ah day am yooyu bëgg. Hmm. day am yooyu nag la ne mën nga ko am. Hmm. mooy la yéen ci yëngatu. Hmm. su ko defee yaakaar ne xañ la noflaay. te du tax na yëngatu yi indi benn natiija. muy ay coono yu niil mooy loolu la dëkkee. waaw kii mun ak taxaw xëy na tijaayan ci diggante yaakaar boo mun naan ak mébét. day am ay yaakaar ak ay yu muy jëmbat. ñuy ko yéen ci mu yëngatu. te li mu yëngatu ko gis. xam nga loolu kenn du ko. dafa mu ne sëy mu saxaabin seenu niir xullabin wuraadi huruj baariqoo melaxam waqifun ak taxaw bayna tijaayin ci diggante yaakaar wa mun a naat nëbët fii kulli yawmin nekk na ci bépp bis manzilun wàccuwaay mustawbalun ba dégg ñu diislu mooy bu xam ne wa baal la ci man jigu ma yastaf boobu na mu ñeeri maa mu jëtee loxam sama bakkan aw mujtawan wala lu ñu gis mu ne bis danaa am lu ma jot loo xam ne baaxul ci nit. wàññi ma lu ñëpp xam. wala bis bu ne. danaa am lu ma jot lu ma naqari. xaaja dama am lu ma bëggoon. xam nga loolu kenn bëggu ko. al manzilul mustaqbal mooy bu xam ne jiwu la. da nga faa ko. dama mel ne man bu xam ne man nit laa ko xam ne bi wute rek. da wàcc bu xam ne jigoon bi wute luy wàññi nit dara dana ma jot. jëlee mm. ci man dara. fi kulli yawmin nekk na ci bépp bés. Hmm. masulun wàccuwaay mustaqbalun bari ku ñu diislu boo xam ne mat la ci a hmm. waaw fi mu rek li wàññi ni dara dana ma dal. Hmm. yéen sa kuréel dana ñeeri maa moo jëli ndox sama bakkat. te nag nit li wàññi ni dara bu ma tane damay wàññi dara. kon man dundu ko teekum lay gën. waaw muy tawan wala bu ñu si. wala lu ma neexoon si du ma ci man dara. maa xintu jottu ma woon ne xam na dara naka jamono yus nii nii dana ma wëññi ala dara ci kekk mooy suufu dëgër du xam ne lay xaatu gërëm bi ci moom dëbbul ko daa ba tëm ay dàkk mosuma nattale ne jamono dana ma sësale ci dëgër dëgër boo xam ne ma tëm dàkk sax bëgg jaagal ne ma gasal ci dafa am ci nit ñi xam ne dañuy faral te ñemee dugg ci lu wóorati dañuy faral te ñemee dugg mu ne moom nag jamono joxoon na ko një joxinu një muy dund dund bu neex bu xam ne foogu toon ne dañ ko sësale ci lu xam ne ñi ñemee lu métti sax ñemewuñ ko àngal ma xam nga bëtam daal ci ne dafa bëgg a jàpp su suuf tëgëree bëgg caa def nag mu dëgër yooyu su wax ci nit ñoo xam ne dañoo faral di engagé yu métti. lu métti nag ba ñuy engagé lu métti ñoom wóolootuñ ko. Hmm. loolu la ko naaw. Hmm. maa xëy na jartu ma ne. Hmm. am na solo am na ca jamono. yëf nii nii dana ma ne laa yaakaar juróom jaa joom. dëggul ko daan ko tëndal. borom ñëpp ko dana xott. alaay sa dëgg ramax mooy maa ngi lekk. Hmm. Ah, maa ngi naa hmm. waaye lu ma tee dee rek na. Hmm. Ah, lu ma tee lu ma rama. waaye luy maye kàttan. mbaa luy sawar loo. lu mënu ma baax. lu mënu ma waaye duma wax ne lekkuma de duma wax ne naanuma de duma wax ne nelawuma de waaye lu ma ci teree ndee de laa de am waaye lu ma ci may kàttan mbaa lu ma la doon de ama ko ci su ma dund yëpp daal lu ma téye ramak rek la ramak mooy defee si bakkan ne wala lu jógee dafa ñaari loolu mooy ramak dund yëpp daal lu ma téye doo rek la borom ñu ko danaa xool alaay sa dund ala ba benn ci terte terte moo tax dara day nekk tuuti tuuti rek fëy rumtu bu ma sàkku ittisaafan ñeeri rumtu ma sàkku saabal mënta saa aji jëfeen ci sàkku waaye duun ne nag damaa bëgg loo koy waaye dama fekk suuf si la mën a xam rek fëy rumtu bu ma sàkku ittisaafan ñeeri rumtu ma sàkku saabal mënta saa aji jëfeen ci sàkku waaye. lii ñu xaal ma addahru jamono xawlan hat kaamilan mu daaji mat illa alladi jëm ci li nga xam ne awwada baaxoo loxoon na ma ko affaire bi da koo jógee jógi nu laajte waaye mébal la mu ne xellante xoor su ma dund ba wiyoo del si haa ma dundaat ci ren ba déwén bala maa dee diggante xel mu dal ma diggante wér ci yaram ga diggante kattan la diggante bayre ba diggante koom nga àndoon ak ndaw ka xelante woon loolu des ci mu du naan jaar bala maa dee ndax loolu dana des des xelante woon loolu des rajo naa ji dellu la mm, lii ñaar maa tëru jamono xawla mm, naat kaamilan mulaajiman mm, ila la lii jëm ci li nga xam ne aw wada baaxooloo woon ma ko ndax jamono la ma miiraloon ci delloo xaaret ba di yoon de am wala góob laa yor fa di ko yaakaar wala nii rek lay doon ah nii rek la atte wax na ko in lam ba fatta it fatta it dagal ko فإن إرواثك والعتبى سوى ربي علي طالما أنصبتني والتبقي بعد ماء غصن ملتهى تبقي علي طالما أنصبتني والتبقي بعد ماء غصن ملتهى laa taxsaban yaa taaru anni baari'un li nakbatin tu'riquni arqal mudaa maara saman law hawatil aflaaku min jawaanib al-jawwi alayhi ma shakaa lakinnahaa nafsatu mahdurin idaa jaa saluhaamun min nawaahihaa ghamaa mu ne ndax lu dund gu neex ba ma doon dund danaa ci delluwaat kem ren ba déwénam déet mooy xelante woon loolu am loolu nag du ma saab ci tawat jamono ci lay wéy mu ne yaa sahru te yow jamono illam te ku bu xamul mot gërëm fëtt it na nga ndànku yow ba léegi bu fekkee sa xol seddagut ci li ngay nga man ma bàyyi man nga woyofal sa loxo alamat ba mooy nit ki dana loo naqari nga fay ba sa xol sedd loolu mooy am baa ji cosaan su fekkee la ma doon doxal ci ndaw bam nga may duma te ba léegi sa xol seddagut nga mën a ba ah nga def ndànk rek yaa daru e eh, yow jamono illam te ku bu xamul ba léegi su fekkee sa xol sedd ko daal ci fi ma toll fa te it ndànkul mën nga def ndànk fa inna irwaadaka naka sag ndànk waloon ba ak gërëm sa waa ji xemoo la su ne moom boo defee ndànk kalaatuma tëbën bu sa xol seddoon nga bàyyi ma kalaatuma tëbën fa inna irwaadaka naka sag ndànk wala baag sa gërëm yëpp sababun way xemoole rasif na nga noppal alaye ci man may ma tuuti rafahiya may may ma tuuti fees ci nekk taalama an soxtani yàgg na boo ma sonnalee ndax yàgg naa ci coono su fekkee ba dina soxla wala taalama an baytani yàgg na ba loxe nekk na ba ma jeex takk lu ci la dama nga may ma tuuti yaatu may ma tuuti feex bi yàgg na bi yàgg na rafi noppalal alaya ci man may ma tuuti taalama an sabtani yàgg na ba wastabqi na nga sakkoo tesal baxda may xusnin lenn ndoxam bànqaas multaxan bëri bu ñu fulli fi mu ne fi ma àgg ci loru maa ngi mel ni yar boobu ñu xañ ci xam nga tooy bi ko doon dëgëral danaa daagut bant bu li ci ëpp ci buum gi lay gi li muy defee ci tooy tooy mm-hmm. dafay tuuti mm-hmm. su ba tegaat buum mm-hmm. mën nay dëgëraat waaye lu ko kos balaa tegaat buum nag mën na jaar doxee dee may nag dama toll foo xam ne su luñ ma te ci lu na caa def dama mel yar boobu ñu xaaj bi bu muy lori xam ne lu ko laal rek mu far wow may àgg naa laa ci moo tax daal dama bëggoon nga tuuti rafariya wastab ke na nga sàkk koo teesal hmm. bantam maa yi xus nin lenn ndoxam banqaas hmm. muy taxan bëri bu ñu fulli bëri bu ñu xañ hmm. xam nga mu ngi wax waxi kuy tawate pour nga xam ne tawate gi du dëërë bi waaye luñ denc ba war ko génne génne ko rekk la ci lay dëpp te wax waxi dëgër nga xam ne ku mën a muñ la maanta ya dëru bil ahwali tarjaona illa kaman yaqraul julmuda bil xasafi yow jamono métti métti yi ñuy songee nii xam nga ni nga mel mooy yaa ngi mel ni ko amee kembe di ko dóor ci daj bu mag mooy ngatt yu ndaw yi soo ko dooree ci daj dajoo dugg yi te da nga ñàkk ñàkk sax lu ñu mën a indil lu ñu tiital te da nga ñàkk sa turu rafet waaw maa anta ya dahru bil ahwali tarjauna illa ka man yaqra'u al julmuda bil xasafi in kunta anta li sayfi al xadri muntaqiyan soo defee xot muy jaasi joo bocc pour carte ma ko mm. fa inna ni min jamili sabri fi sawabi mm. fekk nga fekk nga ma mbubu ko mm. bu xam ne maa ngi ko rabee ci muñ gu rafet waaw loo pareel ci xot rek da ma fekkee muñ gu ko attan waaw maa anta yaa dëru bil awali tarjaona illa kaman yaqra'u julmuda bil xasabi in kunta anta li sayfil xadri muntadiyan fa innani min jamili sabri fi sarafi xëy na loolu lay daaral la taxsaban bul jot yaa daar yow jamono ne am ni man daarion aji toroxlu la li nag batin ngir musiba toriqu ni wow dana ma seeñu arqal mu daa kem sañu paak mm-hmm. yow jamono mm-hmm. musiba woo xam ne bés bu set mu jël ci man dara mm-hmm. jëlal ma alal jëlal ma ma bànneex mel ni paak buñ ngëf te tegee ci man dara soo ma ko tegee it mënoo am ma waccal la batte loolu mënoo ko am de ndax tax daban bul aji torox lu li nag ba tey ngir musiba. donc rek ku ne yow dana ma seeñu. arqal mu daa kem seeñu paaka. maarasta jànkuwante man ko xam ne. law hawat bu daanu woon. alaflaak ku palagi alayhi ci kawam. min jaanibil jëf min jawaanibil jëf bi. tukkee ci wàllu jaww ji. kon itam masaka du tawat ki nga songu suñ daggoon aflaagi bi ma fiha minal kawakibi daane ko ci kawam itam du ko tax a jàmbat maanaam biddiw yi ngay gis am na ci yoo xam ne yu rëy la ñoo ëpp suusi lool sax dañ la sori rek dafa am na fuñ dëkk foo xam ne duñ koy génn ablaag yi juróom-ñeent lañ alkawaakibu sama bu nekk falag bu boppam la amee ak falag bu ñetteel bu bu bu juróom-ñetteel boo xam ne moo ëmb yeneen falag yi def ak bu juróom-ñeenteel boo xam ne moo ëmb ablaag yi ak yi leen wër dina ko baax a baax a wataasewoon haarin hawaaha kulla fa jalla fa daara hasara kuna wa jalla jërëjëf bu baax a baax. wasaase waan aarin hawa kulla. fadaara ansa rabbuna wa jalla. xam nga waa ne kon biddiw yeeg seeni falak. dana diis ba weesu am. mu ne ku daggoon falak yi ak lu ci nekk ci biddiw. daane ko ci kon it du ko tax a jàmbat de hmm. subaana yi jamono indi nii hmm. pour moom yu ndaw la hmm. yu xam ne tegu ko fenn maara sa jàng ko ande nga man ko xam ne law hawat bu daanu woon alaf laa ku falawi alayhi ci moom min jawaani bil jawwi tukkee ci wàlli jaww ji kon itam maasa kaadu tawat yonent bu Zureydin ci mujjanteelu dundam dafa ame woon tawat bu ñuy wax palis li nga xaw a niroon mooy paralysé loolu la niroon yàlla de mu faje ko mu wér bi mu wéree delluwaat ci liggéeyam comme ni mu daan jàngalee lu xam muy ko def bañ demee diir ren ba mu lekk ñam wu xam ne baaxut ci bu ko defee tawat bi daal di ko dikkal bi mu ko dikkalee nag mu néew kattan trop bu yëngat loxoom itam yëngatu bu ñàkk solo la ko mm-hmm. wa batala min maxsimihi ila qadamayhi li mm-hmm. ko dalee ci bii ñii takk laxasaay nii mm-hmm. ba dina gul tawat bi ko mooy suuf jëm yëpp daal di yàqu fa isa daxala alayhi daaxilun dajja wa taallama li duxulihi wa in lam yasil ilayhi tawat bi sonal na ko ba ne di dikk yëngatu kii dikk sax xawu gi muy xawu ci jëmmam lu métti métti lay do donte kooku du ku yàgg ci moom sax ndax sonn bersaat mu ne immigré din lii jotoon na ko ci ca dundam abu aliyin taalibam la mu ne ko kuntu aqulu fi nafsi inna allaha xaaqabahu bi qawlihi bil maqsura maanaam sama la xawatil aflaku mooy dama yaakaar ne waxam li dem ak xasoora maanaam sama la xawatil aflaku min jawaani bil jawi alayhi masaka moo tax yàlla teg ko lii loolu daan wax wa kaana yasiihu li dalika siyaaha ma yamsi alayhi aw yasilul masala yasmahu daaxiluhu baadun anhu daan na yooxu yooxu yoo xam ne soo ko soree it danga ko dégg. wa kaana maa haadihi al-haali saabita siini kaamil al-aqli yaruddu fii maa yasma'uhu wa yus'alu an waratan fiihaa te mbégte mm. rek la waaye mu ngi ànd ak kalam bu baax a baax. mu tontu la tontu bu wér-wér. su déggee ka tontu ko tontu bu wér waaye métti bi. moo daan xaar ci léeg-léeg mu yoo yoo métti. mu ne tawatu Malik moo daloon ibnu Duraydin ci setal dundam te métti woon nii moom Abu Ali al-Qaadi mu ne dafa yaakaar ne li mu waxoon ne maaras taman law hawatil aflaaku min jawaanibil jawi alayhi ma shakka ci loolu la ko yàlla di pugal xam nga loolu la wax saraakat mm. bi nag mu ne loolu xandu ci tey xandu ci ëllëg moo ne wa abalil xale bi moom du ca ànd tey fra yi dañoo bokkul moo tax man fra yi bokkuñu fra mu ne aqulu yaxfirullahu li abi ali moom kii li may di ko wax mooy yàlla yàlla baal faqad billahi wa sanna ala sayyihi wa bi gayri haqqin ndax lii duudu waxi rafet njortu ci yàlla duudu waxi fonk sa kilifa itam fa inna bayna marati ibni Duraydin bil baligi wa ittisaalihi bi ibni Mikaal allah seeni allah seeni ah, ak doom bi qiila fiihima al maqsuura aksara min isnatayni wa ishriina sana mu ne ibni Duraydin fi mu wéyee maqsuura bi ak fi ko taw fi ko tawatu baligi bi gaare xëpp na ñaar fukki at ndax ibni Mikaal moom la jaxasoo doon ba tàmmi ko maqsuura bi faqad ittasala bihima qabla sanati alfayni wa sab'atin wa tis'iin allati sannafa fiha lil mikaay wa maata sanata salaasa miatin wa waahidin wa ishriin mu ne ca atam lu jiitu atam ñaari ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci gàddaay gi ci la jokkoowoon ak ibnu Mikal ak doom Abul Abbas Ismail te mu ngi dee ci atam ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn ëpp na ñaar fukki at lu bëri ñaar fukki at ak ñeent mën na allati falaja qablaha bi amayni te tawat di ñaari kon lu mën a taw bi mu wéy mu jokkoo ibnu Mikaal mi doon wéyal makk sóore bi ak duñ tawatee ëpp na ñaar fukki at wa mata kaana al bil baali aw bi asattan minhu bal bil mawti dinte saama na wax ko ba dal mooy lu xam dal ko waxu dara naka lay dalee ne rek nga ne waxam ji moo tax te wax ko mu ngi ni te du wax dara mu ne dee sax laa wax nga ne ko wa masa kaana yarju abu hadi indi shaykhihi waqar ala sinno ala taseen ala taseen xayra ay yemoota mooy lu mu bëggoon sëriñam romb na jëm ñeent fukki at jëm ñeent fukki at ku ko am da nga war a dee gàttul sax maa léegi lii ci lañ koy bugal ab anna saahiba araku aati ay dina manaa diidu yubbiru ala shaykhi aw xat siyaahahu wa yaudduhu shikaayatan summa iqaaba da ngeen laaral kala moom mu ne ki fi doon wax arab mu ne ki fi doon wax fii loolu ko fekk mu naan sëriñam bi li day caali sëriñam ki arab wala dina mu ne dil wàccaate la wàccaate la dégg boo demee ci tarjumaam ba ci amaan yi ma boo di ne ukaat yi hmm. dafa gis xitaa boo xam ne dafay bind haadis rakkaani ji di rakkaani ji hmm. ne ñaari xew ñaari xew-xew la hmm. yoo ne ci moom dañ ko tudd jamonoom dafa amoon tur lool lool sax nag ñu ko xam-xam moom Abu Ali al-Xalili Sëriñ Salim Ibn Duraydin la woon mu am nag réew mu xam ne dafa doon benn hmm. xam-xam bu xam ne soxla nañ réew hmm. ma bégee buñ ko bégee hmm. tax ba teeru bu rëy rëy rëy bu am doole bi ñu yegsee màggal biñ koy màggal mu am awuyu arab wuñ koy wéyal mooy summa taqum naa arafuhunna li aydina manadilu wéykat bi wéy mu ne ko arafuha te arafuha bu doon wéyu du baax ndaje ma yàqaal bu jot yàqaalu kii ngeen kii dafa xam dara di teeru xanaa du xaadu kii ngeen di teeru ku xam ne nag su wéy da koo daane di teeru sa wote ko lool ngan gi yàqu moom la ko jiire tàmbalee mm. jàkkaay kii bi daal rabbaane gis naa mën naa déglu ko fekk mooy si kër sëriñam la koy am benn affaire la benn affaire la ci biir dégg nga dama yaakaar ne daf ko mere lool jamono mm. mm. man ku xam ne law xawat bu daanu woon alaf laa ko fëlëgi alayhi ci e moom min jawaani bil jëbi tukkee ci wàlli jawwu ji jàmbaar nga song joo xam ne ku daggoon alaf laa ku bi ma fiha min al kawaakibi daane ko ci kaw kon itam de kon it du de dana ko mën a wala fay dee boog tala jàmbat waaye nee na daal du ko du ko jàmbat ndax dana a supporté la wala dafay dee ba du ko tala jàmbat xanaa ngeen seet nu ngeen na daal du ko jàmbat moom daal loolu la wax loolu la wax nga ne ko pourtant li fi wax ci sa wéy yi moo gën a xoyof loolu mooy loolu du question jàmbat daf du lu war a génn génn lu ñu war hmm. lakin naa li fi nekk bi nabbitu mabdurin tablitu ku dënnam di métti hmm. ida jaasa bu fuuree hmm. luxaamun puurit hmm. min nawaahiha ci wàllam xamaa mu mu xap mu mu ngi mel ni ku xam ne dënnam day métti dënn bi bu fekkee dafay soo tëblit de soo tëblit ba tëblit boobu xajatul ci dënn bi àgg fi mu war a génnee faaw mu tëblit sirigul ne moom tëblikat la waaye lii la dul war a génn génn rek hmm. lii loo dencee la hmm. génne ko jot na hmm. génne naa ko loo rek la lakin haal bi nekk xasida bi nafsatu maxdoorin tablisu ku danam di metti la ila jaasa bu yëkkate ko ndoxaamun tuurit min nawaahiha ci wàllam wa maa mu xam ndoxaam comme li ne dañ ko suul ci barab mm. am bis boo xam ne bu jaakee damay sant kalaat def li ñu def yoon loo xam ne nga jamono groupe waaw ada yaa fatihaatu luxum mm. baax na من كان ذا سوط على فرض القضاء إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أثنياه للبلا ما كنت أدري والزمان مولع بشتم المؤمن وتنكيس القوى أن القضاء قد في بهوة la tastadillu nafsu man fiha hawa fa in asartu ba'daha in wahalat nafsi minha ta fa qula la la ci jàng lool daf doon wax jaar jaar yi muy jaar mu ne nangu no teewi ndax nangu man da bañ la ah dégg nangu bokkut ak tëlee bañ sela mm. bu baax a baax a baax mm. waaye raditu gërëm naa mm. mooy jamono li may teg maa koy tegoo xaban ci noteel waaye du nangu ko mais tële koy bañ la loolu moo ma tegoo waalal xabri ci noteel lay xamee reba man gërëmal ku xam ne xat kaana nekkoon na mu daa soxten de borom ak sànji ala soppil xataa ci soppat ak dogal fekk na jamono noonu la tëddee bu indee loo xam ne jibuhut la it xam bi nga xam ne man la koo rëcc man la koo teer doxal li mu bëgg a doxal mooy sax bawu dañ ci wéy waaw kullu mri'in bi mihaali dahri makrubu kum mën a ak lum mën a dëkk ker bu ko jamono ak kum mën a to ak lum mën a dëkk wa kullu man xaalabal ayaama maxloobu waaw kum mën a doon ker bu soogeeg jamono mooy mujj daanu rek mooy noonu la demee mooy tax man bëree duma ci fekkante damay xam ne mën nañ ma rek ah doonte bëgg woon mu demee nii ah ma xam ne man da ñàkk demee nii rek waaw bëree duma ci fekkante damay xam ne mën nañ ma rek ah donte tànn ma woon mu demee ah, ma xam ne man da ñàkk a demee nii rek raditu gërëm naa xasan ci noteel wa alal qadri ci noteel lay amee xisaman ngërëmal ku xam ni kaana nekkoon na mu daa soxin de borom ak ah, wari kaana nekkoon mu daa soxin de borom ak sànji ala fafil qadaa ci soppat ak dogal innal jaddi yi day ne naka ñaari way xeete yi te mooy guddi ak bëccëg ida mastawla yaa bu ñu notee mooy bu ñu amee kilifteef ala jadidin ci lenn lu xeete at na yaa bu ñu jege ñal ko lil bi laa jëm ci rab mu ne guddi ak bëccëg mii nga xam ne bi gudet ñu xeete su fekkee ñoom nga bëgg leeral te yow benn yoon ngay xeefe sa jamonoy xeefe ngay xeefe ndoor ak ñoom bés dana ñëw yow nga ràpp ñoom ñu xeefe ndax heure bu ñu ngi xeefe te yow benn yoon ngay xeefe sa biiru xeefe nag mën nga cee leeroog ñoom ba mel ni yaa ngi xeefe comme ñoom mais li nga war a xeefe bu jeexee nag te ñoom ñuy xeefe xeefe aar da mujj doon ko ràpp ñoom ñu xeefe dina ko bu baax a baax mm. waaw mooy nit ak lu ne du ne du ne du ne rek xam ne ba mel ne xew na ci lii xew na ci laa xew na ca laa dana mujj rek de nit ku xam ne lépp ma jeex te jamono di doxee nam daan doxe su ko defee jamono ma ko joxoon eh, kanam moo koy jox gannaaw joxe kanam waaw xam sa moo wax ne innal jaddi day fi tuuli ixtilaafihima la yafsudaani walakin yafsudu nnaasu mu ne guddi ak bëccëg ak seen wuutu hante bi ah ku fi foog ne na yaa ñëw bee leeroo itam de ñoom de duñu ràpp ni day dem ba ca kanam mu ràpp rek ah innal jadiidayni fi tuuli ixtilaafihima la yafsudaani walakin yafsudu nnaasu ah mu ngi ko wax ci lenn maraati yi muy martiyal mbokkam mi saxr bi ma inna inna zamana wa ma yafna lahu ajabun ab xaalana danaban wa suusila raasu inna aljadidayni fi tuuli ixtilafihima la yafsudaani walakin yafsudu nnaasu inna aljadidayni naka ñaari way xeese yi te mooy guddi ak bëccëg idaa mastawlayaa bu ñu notee ala jadidin ci lenn lu xeete boo xamee ne ñoom not nañ kilifteef maanaam nañ kilifteef ci lenn lu xam ne day xeete mooy daal yaa ngi leeroog ñoom nag seen jox njër mel ni mu ngi jeexital si yow te yow benn heure rek at na yaahu ñu jege ñal ko li dilaa jëm ci rat mu ne maa kuntu nekkuma woon abrida xam man mosuma xam mosuma nattale ne annal qadaa naka dogal saadi fii aji sànni sama fii huwatin ci kambu huwa mooy kambu boo xam ne buntu bi mooy xat biir bi yaa mooy gën a naqaree génnee ci kambu boo xam la tastabillu du xiqi istaban la min maradihi mooy tane na nafsu man bakkan ak koo xam ne hawa daanu na fi haa ci kàmbu googu man mosuma nattale ne dogal muy walla jamono dana ma jël dama sànni ci kàmbu goo ne biit bi amul xàpp te daanaka amul buntu génne kay loolu mosuma ko foog wa zamaanu te jamono moo da on ku ñu sopp loola ñu sotti mal moomin ci tasaare lu ñu boole watan kii se ko waa ak te fekk ñàkk xam-xam ak la rek waaye jamono sax yooyu la di doxee waaw man mosuma foog ne début ci mbir moo mënu dara danaa ko mën a def te fekk jamono loolu la dëkk de wan nit ñi waaye nag man maa amee woon ñàkk xam-xam ak gune yéen bu baax a baax maa kuntu nekkuma woon agri man mais am na xadaa dogal. xaadu ji aji sànni la ma. fii mu ci kàmb mosuma foog ne dogal dana ma jël di ma sànni ci kàmb. bu xam ne laata sa biir lu du xëcc du tane. naftu man bakkanam koo hawa daanu na fi haa ci huwa boobu. yaakaaruma woon mukk ne jamono dana mu dugal ci mu tiis. mu xam ne ku ci dugg génn ci rek mooy doon sa soxla benn soxla ngay am loolu mosuma ko foog. wa zamaanu tey jamono moo la woon ku ñu soppaloo la bi sotti mal moomin ci tasaare lu ñu boole watan kii si woon ak firi kàttan man maa amoon ñàkk xam-xam ak gune rek waaye jamono sax loolu moom mos di doon jikkoom loolu moom mos di doon jikkoom nee na moom lii lu ko bett la ndax ñàkk xam-xam ak gune rek waaye fekk na jamono lii la mos mel xanaa xeewu na xanaa kon xeebu na ndax du waaw mu ne lii lu ko la du deg ñàkk xam-xam ak bu ne rek waaye jamono nii la mos di mel xanaa kon xeebu na de bu xeewoo nag ana lu ko xeewoo dem ngay jëriñ moom lay wax waaw ali ku am xel la ku mën a wéy la ku ku xalaat bu sori laa amee bu leer a leer laa xam nga léegi ñu ne bala ngay xam-xama di rey la léegi nag bu la reyee nag ba nga xam nag hmm. ah war nga jaay jëriñu nag waaw muy wax nag kon moom bi mu xamee nag lu ko xam gi war a jëriñ hmm. mu ne bay naa sart boo fakktaloo hmm. bandaxaa ci gannaaw kàmb gii fa qula wax leen yéen sama ñaari àndandoo yi ne laalaa yàlla bul mucc baatu laa baatu arab la bu nit di wax jëfandikoo ci maslaa di ko wax koo xam ne dafa am lu jot lu naan ko laa mooy yàlla na nga mucc mu ngi mel tey dina naan wala li muy wax comme toxo noonu di ko wax xale bi sëkk xam nga amul dara luñ koy firee waaye xam nañ ne maslaa génne jàmm rek moo tax nga di ko ko wax baat bi noonu lay tegtale su ñu ko bëgg a daat ne laa laa mu ne lii xam gi ma ci jëlee su dee génn nawet bi war naa am ràññee bu du ma dalati wala bu ma dalee jarul kenn dama yërëm xëy naa sax su ma pëkkataloon baadaha ci gannaaw kamb gi foofu laa wax ne laa la ah yàlla bul in waala ndegam mucc na nafsiya sama bakkan menaa taa ci kamb mu ne suba su ma amati jël su dee fii génn su ma ci génne sax lay jënd waaye su dee lii génn naa ci amati jël la jarul kenn di ko jëlee gis nga ñaari sarta buñ tegalooyee te benn xaaral ko watil jaarul seen diggante jawaab ba sarta bu njëkk bee ko moom fa in asartu baadaha sarta la in waalat nafsiya sarta la muy ñaari sarta te buñ seetee benn xaaral ko watil jaarul seen diggante kon fa xuulaa laa laa jawaabu inaa sattu baadahaa la nga bàyyi ko xel fa inaa sattu moom jubluwul ne su ma muccee bu ma kenn waxaat yàlla na nga mucc waaye su ma muccee lii dalaat ma bu ma kenn waxaat yàlla na nga mucc loolu may wax ni fa inaa sattu moo fëkk taloon baadahaa ci gannaaw kàmb gi in waalat ndegam mucc na la fee sama bakkan mi laa taa ci lii su fekkee de su ma ci laa su ci def